jotaay bi waaye foog naa ne nuyoo yi dañ koy jiite ci ki nga xam ne tey mën naa ne mooy suñu kilifa ñun ñëpp muy euh, monsieur le maire Abdoulaye Diop mu nekk koo xam ne wax dëgg fa yàlla li mu jot a def ci caajaay en tant te ñëpp teg seen bët mu nekk loo xam ne tey ñun ñëpp ñoo ngi dem ba ci jariñu amuñu luddul diko sant mais ci biir aussi maa ngi nuyu frère Pape Diarra Diop di aussi Khadim Ndiaye ak toute la jeunesse de Tchadja Escal Sud plus précisément santé mais aussi di tous les membres du mouvement MSOY mouvement pour le soutien de Omar Youm tay ñi ma ci andal muy nek ay xalé yo xam sen loxo dafa set ño xam li leen itel moy le développement de la localité qui est Tiadjay tay jeunesse bobu suma nyom àndeek ñoom ñu ne tay lu ñu bëgg moy li nga xam ñong koy mébét diko xalat ñu xol leen koy mettre en œuvre c'est-à-dire le ministre le maire El Hadji Omar Youm nous par rapport à l'évolution de Tchadjaï moi aussi nous avons koy monsieur le ministre El Hadji Omar féliciter cette nomination en tant que ministre des forces armées Lolo Taïsou Amé, limité qui. mooy que am na foo xam ne monsieur le président de la république monsieur Macky Sall teg na ko fa. le mouvement m dafa am loo xam ne moo leen boole. parce que man ñu bari dañoo yàgg naan monsieur parrain avant tout man nee naa lii lii nii nii te tey defuma ko ngir sama bopp man tooguma boo nga xamné politique jot na may dugg ci jeunesse bi man bi may dugg ci jeunesse bi ñu bari fii boobu amaguñu sax fukki at lay commencé di and ak ñom xébuma kenn parce que so nekké ki ndaw jox leen considération comme niko tonton Pa Faye waxé comme niko ci grand Mbaye Lam waxee xale moom mooy màgg ëllëg te man je suis vraiment fier de la jeunesse de euh, de santé champ de course aussi tamit j'ai l'habitude de le dire motax parce que ñepp la bolé Moi, mancé la ñepp bon donc tay dafa am lo xamné bëggon bëggoon naa ñu leeral ko fi avant ma continuer Marc monsieur le ministre El Hadji au moment où il était député à l'Assemblée nationale ñu tok di waxtan mu né man jeunesse santé amuñu benn problème fi ma leen fi ma teg yeneen jeunesse yëpp foofu laa leen teg bon donc man li ma leen ñaan di leen ko sant xam naa dans les jours à venir dinañ def sunu suñu kéemtulaay kàttan ba mu ba ñu amaat une rencontre élargie ak la jeunesse de santé ak moom yàlla dogal na ne aussi le mouvement MSOY maintenant existe à santé mais def leen seen xel ne li fi am nii tey ñun ñepp ko de amul xaj amul sen lima bëgg moy ñun qu'on soit unis pour un seul objectif et l'objectif principal moy ñu def suñu lay katan ba nga xamné ki nga xamné moy le coordonnateur départemental monsieur El Omar Youm li nga xamné mo nous élection présidentielle tey ci élection yooyu yéen ñii nga xam ne ay ndaw ngeen tey ngeen na fekk si ngeen la mouvement m ñu ànd di liggéey ñu def une sensibilisation davantage par rapport ak jeunesse mais aussi bu ñu yem ci ndaw ñi ku ñu mën a waxtaanal nan waxtaan ak moom parce que foog naa ne fu waxtaan amee rek gindeeku am te gindeeku su amee booloo am booloo su amee banneex am su bànneex amee naataange am bon donc ñun nañ def suñu lay katan ànd bolo don ben jàppale monsieur Elage Hadji amna Youm bo xamné le mouvement MSOY commencé woon na mu jëmele ci walum parrainage et je pense que dans chaque secteur amon na ñoo xam ne ngi doon def sen parrainage té xamna né inshallah dans les jours à venir dinañ daje pour, pour une évaluation du travail que nous étions en train de faire ensemble. que la jeunesse est déterminée mais amna ben jeune franchement aussi tamit remercier muy Njaga sen Yalla pour l'engagement de la jeunesse dafa am solo réseaux sociaux la gis publication mu ma ci am ci ma téléphone de message ko ne ko bëggoon naa nga bàyyil ma sa numéro inbox bi mu ko defee maak moom ñu déggante ba ñu gisee ba toog gis naa ne kooku moom am na benn engagement vis-à-vis ak ki fi nekk muy monsieur El Hadj Omar Youm moom bi ñu waxee dane ma man de bañuma ko waaye su ma sañoon mu gën a yaatal mbir mi ba mu yegg si suñu côté yi muy gannaaw stade ba nale ba ma woo ba mu defee ba mu demee noonu nag man message am yeggale naa ko waaye nag aussi li ma bëgg mooy mouvement bi bëgg ñu xuloo bëgg xaajoo ku xam Cheikh Fall Cheikh Fall lan lañ ko xamee yaatu disponible ku xam Cheikh Fall lan lañ ko xamee yaatal ñëpp parce que ki nga xam ne moom la ñuy àndal ci politique noonu la mel muy Omar Youm bon donc su ma sañoon le mouvement M képp ku bëgg a na ñëw ñu ànd defar ñun loolu lañu bëgg parce que dañoo dem ba constaté ne maintenant aujourd'hui toll nañ ci phase boo xam ne su fekkee ne maanaam tey am nga kattan ak mën-mën ba mën di évoluer dans le mouvement mouvement boobu war na la mën a jural dara tey mouvement bi déjà am na ci ñoo xam ne ñoo ngi leen wutal ay permis lépp ci mouvement bi la permis de conduire am na ci ñoo xam ne ñoo ngi leen di jàppale ci ay formation jeunesse bi loolu soxla nañ ko am na ci ñoo xam ne ñoo ngi def suñu kéemtulaay kàttan ba nu mën a am ay stage bon loolu am na ay responsable politique yi fi nekk yoo xam ne defuñu ko bon gàcca ngalaama m soy donc nag li may ñaan mooy la jeunesse ñëw leen ñu ànd booloo bokk même objectif mais nag duma jeexal mukk mukk mukk mukk mukk mukk mukk mukk nuyu ma ñi nga xam ne ñoom ñoo teew ci jotaay bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp di ci doxal di ci nekk parce que xam tax ma wax mooy que liggéey bi am solo soo koy def day am mucc te mucc bi mooy mu jëm kanam mais aussi Olof Njaay nee na ku lim jum dafa am un frère un ami moom tamit dañoo toog mu ne ma Cheikh grand ma ne naam mu ne ma man de Omar yum bëgg naa ko waaye ñu tey ñu bari foog dande maag moom dañoo réeroo te man yàlla xam na ne dewuma maag moom noonu te tey santé gii lepp lu ma meuna def tay ba ba ñu ñëwaat ak Omar yu ànd ak moom dinañ ko def muy mon frère et ami Matar Ngom mom bàyyiwul dara tay rencontre bi tay su amé mom ak Khadim Ndiaye ak euh comment ak kii Pape Diarra Diop ñoom ñoo ci taxaw mais aussi di nuyu monsieur le madame madame le maire qui est maire Binta Faye mom tamit mënuñu ko ñaka baña nuyu donc mom nek na ko xamne wax deug fa la yalla yaay ji bax la ya jo xamne amna disponibilité ci ñëpp voilà légui dal fiñu jéxalé di tëjee kàddu gui moy on vous donne rendez-vous dans les jours à venir parce que niñ ko défé fi tay santé inshallah rabbi rabi dinañ ko defee ci yenen quartier yi te ñaan nañ yalla bala bobu EMSA gën a am doolé yeen ñëpp ko leen xam mu wara mëna ñëw adhérer la ñëw mais aussi tamit par rapport au parrainage nañ ci continuer di ci liguey parce que c'est ci parrainage boobu la ñuy xamee nañuy nattee suñu bopp bu ñu xepp li nga xam ne moom la ñuy def si parrainage bi su dee benn nit nañ xam ne benn nit lañ parrainé su dee ñaar ñu xam ne ñaar lañ parrainé voilà euh, di ci jiital ki nga xam ne kii moom mooy kilifay jataay bi mbootaay bi leen fi dajale tey ki nga xam ne kii moo ko initié di ko dox di ko tabax ba mu taxaw di suñu doom di suñu jarbaat muy Cheikh Fall mi teew ma bëgg ngeen tàccu ko bu baax a baax a baax a baax parce que parce que doomu aadama bi nga xam ne bii kenn ku ci nekk dafa am loo bëgg kenn ku ci nekk nga am loo mébét kenn ku nekk ngay seet pexe booy jàppale Omar Youm moom mu ñëw pexe yooyu yëpp mu dajale ko def ci loxoom def ci ay moyens def ci temps def ci pexem te lépp li ko ñor du lu mu ci am wala lu mu ci séntu mooy ndamu am Omarium jouru 25 février 2024 donc bon euh, Cheikh ñu ngi lay gërëm di la sant di la wax ne li nga def caajay gis na ko li nga def képp koo xam ne kii mu ngi ànd ak Omar gis na ko xam nañu li nga xam ne lii moom mooy solo ndam te ndam rek moo la tax a jóg fi suñu problème li ci gëna metti yaa commencé di résoudre problème primo votant yi te yow yàlla dimbali na la ba ñëpp nga waxal du du du mag ma rek ñi nga ñi ay yi bu ëllëgee yéen yéen ay yi bu ay bu ndajee amee ngeen di xel di teew ubbi seen nopp déglu ba bu ëllëgee li ñu leen yoral ngeen yore ko. lii ngeen di tabax nii xam na ñu ne seen bopp taxul ngeen koy ngeen koy tabax mais pour askan wi moo tax ngeen koy tabax pour Thiadiaye développé moo tax ngeen koy tabax euh, Omar nag ñaari affaire rek laa bëgg a wax ci moom Omar ku ko jàpp. leer na la ne japp nga gor ku ko japp leer na la ne japp nga patriote ku ko japp leer na le japp nga ko xam ki kii mun naa sàmm kóllëre mun naa euh, ak doomu adama bugg na dëkkam lu mu mën yëpp mu ko fi def parce que tiaja fa mu tollu won bi muy laata ñew ak fi mu tollu yaakaar ku ko xool xam wax dëgg-dëgg neex yàlla lu ci yokkaat rek jaajay nek eh, eh, ben arbre de paix bo xam bi kenn ku ci nek nga bëgg a dëkk fi donc dama bëgg ngeen and ak discipline ngeen gor góorgóorlu japp li ngeen japp baña yox yox yi baña arrière baña a tricher bu ngeen ko defee rek résultat kess ngeen ci am ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant benen yo bo xam ma ngi koy jëmale ci Cheikh Fall ni parce que Cheikh sama rakla sama jarbaata lepp la parce que man euh, man kenn mësumaa xamee sax ci ay affaire politique yooyu mais su ma ci duggee ginnaaw yàlla moom parce que mooy def fu muy dem na ma nañ dem lu xew moo may yëgal stade man ay stade yi sa mësumaa kii mais stade moo ma fay yóbbu bu ñu ko paree ne may joxe équipe def leen ginnaaw yàlla grâce à moom kon maa koy sant di ko gërëm di ko ñaanal fu mu bëgg àgg moo ko xam ne yàlla ko fa yàlla àggale parce nit ki Baye Moussa daana wax naa nit boo koy ñaan na yàlla defal na ko yàlla bon bu loolu passé aussi ñuy wax ci problème mu jeunes yi parce que gis nga affaire bi doon na loo xam ne de mais ku ko méttil rek yaa ko bëgg a sama xalaat bu gàtt ndax ñun ñëpp yaakaar nañ daje bu ñu daje fii képp ku dem rooti ca teen ba rek boo ci ndabal omorim ngay sotti comme ci ndabal omorim ngay sotti nag dama yaakaar ne xol yi war nañoo laabir parce que ki nga xam mom la wutal mel amul non waaw ba tax na kooku aussi bu koy ñun ñun Kër Moussa Faye dañ ne bu béy feebare li ci óore wax ñu ne der baa tax ñun suñ ci waxee daal day mel ni sax kii parce que tey ki jël permanence tudde ko sa papa hmm? jël centre culturel ko sa papa hmm? am ndey am baay am ay mbokk hmm? ko kenn gënu koo gore parce que nit tey mi ngi ànd ak nit tey jii bu ànd ak moom tey bu xasee génn àdduna mu fàtte ko mais Omar loolu dal ku gore ngi noonu Omar ku baax la ku gore la ñëpp doon benn caay jaay doon benn soutien ñeen ñëpp ngeen jàpp ànd gi ci ginnaaw Cheikh Fall jàppale Omar Youm ba février incha allah 2024 Macky Sall gagné Thiadiaye à 100 pour cent wala à 95 pour cent.